am solo la te mooy taxit nga mën a tàbbi àjjana ëllëg waaye lay maye yàlla dëgg-dëgg nee na mooy sàmm teggin sa digganteeg sa boroom ak sa digganteeg euh, mbindeef yi jëmmi diine sax sëñ bi daana wax ne mënoo ko dund topp sunu si yonte wax nga xam ne moom mooy maye lu waaye di am ci diine la ko may mooy topp sunu si yonte sëñ bi daa wax ci am dara moom ci sunu si yonte bi ak topp ko ak jariñoo ci lu dul làmboo ay teggin am na fu mu wax ne id kullu man bi gayrihi raama tibaa fa innahu yuxramu fawzan wa intifaa boo amuli teggin doo jariñu mukk ci topp diine wala dund diine wala topp sunu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo jariñu mukk moo tax Sëñ Tuubaa daa wax ne koom mi gën ci kaw suuf nga xam ne mooy capital bi gën ci capital yi nee na mooy làmboo ay teggin wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru maatazza bihi du izzi li annahu munawwirul janaani kama yuqarribu ilal jinaani Sëñ Tuubaa dara wax ne teggin mooy koom mi gën ci koom yi ci àdduna ak alaaxira nag waaye da cee teg lu am solo mooy xol bu leer li koy maye leeru xol li koy maye dëgg dëgg teggin la koo gis amuli teggin du meuna nek mukk wali yu yalla na xolam du leer te leeru xol googi moy man moy mana tax sa digg ak sa borom da tax mo sun borom mboolem ñiy dund ci kaw suuf da leena japp ñu faatu ba yalla gog di tabbi sa xol yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono nit ñim mu jëflanteel gis nga dañ da dund di def ni ñuy def di lek ka dem ci marché ba ka dik te teewul suñu borom ne ñii ñu faatu lañ innaka laa tusmiu l mawta am na fu mu wax sax ne man fil qubuur mooy ña ngi ci seen biiri bàmmeel ñi dund nag mooy aw man kaana mayitan fa axyaynaahu wa jaalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas leer la boo xam ne suñu borom a koy sànni ci seen xol ñu gën a nag nekk way dund dund googee nag sëñ bi dara wax ne leer googee la koy maye mooy làmboo tegge yannahu munawwirul janani te gin kep mo meuna leral xol nit ki dana nek ci jaamu yalla fekk xolam day gëndi di ndax ay sik mo koy fess te sun borom du bok te lepp loko defal bu amé yenn sik yi mën nako baña nangu te gin nak faw mom mo yalla yalla tax ndax da and ak lu da and ak ñak gi sa bok motax sëriñ bi daana wax lu am solo daana wax ne adduna li fi gën mooy barke daal ne barke mooy loo xam ne lu mu tàbbi rafetal ko fu mu fekk lu néew baril ko fu mu fekk dégg néew daraja ak tolluwaay da koy yokk jox ko daraja ba ñépp gis taar ba ak njariñ la fa ne nee na barke boobu yi nag moo mat a sàkku ci lépp waaye bunt bi benn la mooy teggin teggin képp mooy maye barke sëñ bi daana àgg ci wax ne adduna dara mënu fee rafet dara mënu fee taaru dara mënu fee jag ci dul ay teggin fa inna al adaba huwa alladi laa yaxsunu shay'un duunahu li lay xamal ne teggin moom mooy lii mooy mooy bunt bi mooy mbir mi itam mooy yónante ya yónante ya lañ ràññikoo nga xam motax man nañ ne ñu mané maneeg seen borom moy teggini yi ñuy waxtane teggini fofu ci ñom lañ koy jànge sax ci yoonte yi alayhi musallam gis nañ ku melni sayyidina aisha alayhi salam suñ borom nett na ci alquran ne ëllëg yowmal xiyaam dana ko taxawal ne ko a anta qulta li qulta nas ittakhiduni wa ummiya ilaahayni ne ko yow isa ndax yaa wax nit ñi ne leen maa sama ndey ji ay yàlla lañ foofu xam nga Seydina Isa moom xam nga waxul loola mënoon na ne ko loolu mësuma ko wax waaye ay teggin mayu ko loolu dafa wax ne ko in kuntu qultuhu faqad alimtahu taalamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsika innaka anta allaamul ghuyub loolu de bu fekkee maa ko wax nga xam moom moom fi ne ci wax ji xam nga sa kilifa waxe yow rek nga ne ko nangam waxuma ko wal defuma ko loolu daa daa daa dëpp wut ak ay tegin ku mel sayidna ibrahima alayhi salaam gis nañ ba muy wax li ko yàlla defal xéewal yi alladi xalaqani fa huwa yahdini walladi huwa yut'imuni wa yasqini yàlla suñ borom moo ma sàkk moo ma gindi moo may jox ma lekk moo may jox ma naan waaye bi mu àggee ci wéradi dafa wax ne wa ida maridtu man nag bu ma wéradee ndax wu mënta mënta jël sikk duñ ko askan ci suñu borom bu ma wéradee man yàlla moo may faj wa ida maritu fa huwa yasfin mënoon na ne bu ma yàlla maa tege ak wéradi waaye loolu duy teggin ci diggam moom lu mel ne sikk nga di ko askan buur bu toll ne suñ borom gis nañ sayidna Muusa alayhi salaam ba muy ñaan te booba ma ngi ca dayob coona jaaxle dem ba amatul dara mënatul dara gisatul kenn itam rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir mënoon na ne suñu borom man kat fi ne sonn naa aajowoo naa nangam ak nangam waaye loolu waxin woowu du waxinu teggin mooy dana ko man de ànd ak li nga ma defal ci xéwal lépp te mënuma ko lim bari gi mu bari tax na xawma sax li nga ma defal ci xéwal ànd ak loolu lépp nag teewul maa ngi wéy di la gën a aajowoo yow suñu borom tabaaraka wa taala xam nga yàlla waxin woowu moo gën a làmboo ay teggin moo gën a dëppoo ak ay teggin gis nañ xadir xadir nga xam ne ñenn ñi wax ne ne yonent la donte am na wuute suufiyanke yu bari gën a jëm ci ne moom waliyu la rek ci waliyu yàlla yi xadir gis nañ diggam ak Muusa jëf yam jëf te kenn xamul lu mu doon mooy dugg gëm dugg ci gaal gi xar ko xam nga loolu sikk la moo tax loolu dégg nga askanu ko suñu borom. ci laay sukkandiku di dox ci laay sàmm samay gàtt waaye am na leneen sax loo xam ne naa ko ci def. incha allah loolu muy am solo loo xam ne na mooy teggin yi ab nit ki ak moromam muy diggante yonent yi yonent yi seen biir te wax nañu ne euh, bokk na ci li li tax. doo xam ne masalan aadama alayhi salaam mooy moom la yàlla njëkk a yónni mujjee yónni muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi waaye danga gis ne ñëpp daanaka kenn ku ne boo ñëwee rupture doon sa diggante ki la jiitoon day mel da ngay boole da ngay complété li sa nekkoon moo tax kon jëmmi diine yi dañ ko dañu complété bi des mooy teggee yi nga xam ne moom la murid yi amoon ak sëriñ ba bu njëkk parce mm-hmm. que wax na bu am solo lan daanaka ab randalkat la woon daa mel ne ko <laughs> mu ràndalee ñu daw ko di ko dàq sëñ bi la ñu leer la ko li mu demee lépp ñu daam loxo nee na bi bi bi murit boobee nag waxee wax ji laytaay ko ay teggit ba mu rafet mm. moom mi ràndaloon alali jàmbur ja dana ko dee <laughs> demewul noonu ndax demee moom daa bëgg ba wantal yañ ko ci jot a def mm-hmm. moom la bëggoon waaye ñu mën a tiliwaale waaye nit ki li ñuy wax rek boo nekkee kilifa am na wax yoo xam ne du fa àgg moo tax ñuy wax ne bokk na ci taaru murid gi bokk na li ngeen xamee bu njëkk te mooy moo moo fi ba léegi mooy richesse la boo xam ne ñun rek ñoo ko amoon muy ay teggin masalan murid daawut jaar ci dëgg-dëgg yi wax day mel ne baat yëpp daan jëfandikoo daan jëfandikoo majaasiyan daaw ko jëfandikoo ci jëmmi na mu nekkee dëgg-dëgg rek muy solo loolu man mooy indi na ñeent indi na ay yëf yoo xam ne ay teggin ay njëriñam la ci ko koy def bu njëkk bi mooy sëñ am wax na ne teggin mooy ngën gi ab taar mooy lu am solo xam sëñ Tuubaa da ko bindal fi daree ne xayru si wa ma tazza bihi du xëy si kon muy loo xam ne day mel ne deseetu dara moo sëñ Ba Jaxate wax tax ñu jël nit def ko tegg ci kaw ñàkk ab yaray tax ci kaw di ko caw بأن خير بأن خير بأن خير ما به دان الفتى كون نك كوني دك كون دا لا دوي لو كون بوند دك سيغ توبا سون بوك موم مو دك سيغ توبا دي ديم سي ديغي دنك تيرنا نجابوت دوي لو مونتا ويس لو كون موم لول توك يخ دغ لا سيغ علي موم دافا تاخو ونا مام تيرنا بيكو سيغ سيغ توبا ديمي تا بوليكو تيرنا موم داكو جابان ام سيغ توبا moo tax ba mu tuddee sëñ Tuubaa juróom juróom juróom-ñaari doom tudde Ceerno juróom-ñetti doom tudde Maam Jaara juróomi doom amul dara ci boppam lépp noonu la ko dellu sëriñ Tuubaa te ba muy def loola kenn fekk ko ci ca jamono ba mu koy def ndax loola yàgg na lool bi sëñ Tuubaa dina ci géej gi ba am ayat at kërug Daaru Xuddoos gi paftan bi ak ñax mi di ko nangu moom la sëñ sëñ maam Ceerno woow ne ko na dem foofu yeesal kër ga te lu fa mat def mu def mu jóge làmbaay ànd ak mbooloo dikk ngëbu fi lañ defan ay mbaar dikk yeesal kër gi bañ ko yeesalee ba mu àgg mu dellu bañ demaatee ba te fa ñetti at kër ga mel na melan maam Cerno yónnewaat ko ne ko na dellu yeesal kër gi mu dikk yeesalaat kër sëñ Tuubaa boobu kon ñaari yoon so maam Cerno jox na ko ndigal mu yeesal kër sëñ Tuubaa kër sëñ yooyu yi bi bi ñaar bi ñaar yooyu jàlloo jaasi mbaaxaan yi nga xamante ni moom la doon dagge sàkkit sëriñ Touba yi ci loxol sëriñ Aliou la jaar àll yi joxaat ko Thierno Thierno joxaat ko sëriñ Touba sëñ maam Thierno woo na ko mbakke Kajoor jox ko fa am ngóob kenn ku ne xam ne maam Thierno ay tool na mu toll ci nawet bu nangu mu nekk fa ànd ak mbooloo bala Thierno bëggan lépp mu defal ko ko maa ngi wax señ bi léegi ne ko kéro ba ci Thierno gas luy sian ci Daaru Musti ku ñu wax Ibrahima Gassama bàyyi mu Omar gasama mi tal señ ali ak siyaan ma jëkk bënn ci siyaan yi ya maam Thierno doon ci ca ci Daaru ñu tanga ci ndox ma jox maam Thierno mu lemm nit ñi do la sañ naan bi lolu jalle mam Thierno wono ko bis ne ko kër kër bopam gi moom mu kër maam Thierno ko ci Daaru na ko yeesalal lepp lu fa rap na ko yeesal kere bi suñ àll yu dem dafa yóbbaale ab coggal ay xar yu góor yu jigéen yépp bam laata moo tàmbali liggéey ba jox àddee maam na loola door a tàmbali liggéey ba ba liggéey ba àddee àggee it mu yëkkatiwaat ab lim jox ko ne ko koo soxna yii ci kër gi loolu mooy yoon wu yoonu ñaareel ba maam Thierno su ñu wax sëñ Ibrahima Sylla la la yónni ne ko dama wol ma àlli mu waat ko dikk mu ne ko kër gi nañ ko dellu yeesal lépp lu fi ràpp te mat fee def bu dee néeg bu dee lal na nga ko na nga ko yeesal sëñ àlli ànd ak mbooloo ñëw fa ànd ak lim bu bari ñu nekk fa di liggéey kër gi di ko liggéey ba yàlla dogal lañ ca war a def lépp lépp mat ndax ba lépp matee mu yent fasinaari góor ba muy jébbali liggéey ba moom la booleek liggéey bi jébbal ko maam Thierno ak doomam ju jigéen ju tudd soxna bu Boussa Diouf maam na fab soxna bu sa juuf jox ko soxna mu Modou Mbacke mu am ci soxna bu sa Mbacke loolu laay wax ne kenn liggéey boobu ba mu ko jébbalee ba nekk boole ca yenti naari góor boole ca doomam ju jigéen téewul ba ko maam Thierno yeewi ba yeewee mboole ma da ko ne Aliou pël lu màng màng bàyyi na ko rat señ ali ne kon mbolo mi yeen na ngeen delu bu ngeen demee lepp lu ngeen fa xam na ngeen mako yone lu ngeen tek sama loxo ma di tek ci loxol mam Thierno ba mu ne may na delu kon ak taalibe bi mënut a gën rafet lool. adu cant rek ñu diko delo delloo njabootu sëriñ Aliou Diouf kene ci bop ba di serigne cierno Diouf ak kene ci bopp bopp delegation bi serigne ali serigne serigne dam Dame Belel Diouf. di leen sant bu baax ci taxawaay bi ndax gis nañ bis bi ak lii nga xam ne illa la nga ko jox lépp gis nañ ko wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax tey xam ne lii moom soxna si nii rek la ko bëgg woon ndax nii rek la fi nekkoon moom yaatal njabootu sëriñ bi ak yaatal ci mboolem yoon bi rek ndax ni koy waxee rek moom ñi nga xam ne dañoo ànd ak sëriñ bi moom dañoo yoroon jikkoy saxaaba yi rek ni ñaan yonent bi sallallahu alayhi seen dara dawul fekkee lan ngeen sëriñ yi kon nag loolu yi doxil taxawaay bi it moom ngeen taxawee léegi rek ndax kàddu yi lépp sëñ Ahmad da ko tënk ci ma rek ak i teggin te lii ngeen indi it moom mooy loolu rek kon nag sëriñ baa ngi leen ci sant bu baax te leen gërëm te di leen xamal na it seen teewaay bi moom wecc na teewaay yi daanaka yoonu yoon wépp ndax pëste bi ak yitte ji ngeen ko jox sëriñ bi gis na ko bu baax a baax kon nag ñu ngeen di sant bu baax a baax ndax lii lépp soxna si nii la ko bëggee woon rek gisatuñ ko ci zahir waaye nag lépp ñi mu fi bàyyi taxaw nañ taxawaayu soxna si ba dara deltu gannaaw lépp kanam la jëm rek te it am nañ yaakaar si lépp kanam la jëm insha allah bi kon nag ñu ngi sant bu baax xay na kàddu yi moom dañ koo waajalu waaye nag ak cant moom mënta weesu cant mu ngi leen di sant bu baax a baax te xam ne ñun moom soxna si wax dëgg yàlla xay na mënuñ cee wax sax lu bari ndax fi mu toll ci noonu. jaar fi esclavage jaar fi colonialisme euh, yàq na dugg na ci bopp yi yàq ko ci euh, système scolaire bi mu fi teg boo xam ne dañ lay mel ne dañ lay jox soow moo xam ne dañ la koy nàmpal soow moomee ca ngay namp la ñu bëgg nga mel ni moo di duñ dégg sa làng waaye bëgg nañoo war ci suñ kaw ba buñ ñëwee sax duñu sonn ci jéem a jàng suñu làng yi xeeb loolu suñu bopp nga xam ne ñu boole ko mu formé ka nga xam ne noonu la bëgg ñu mel di leen liggéeyal kooka non seulement di leen di liggéeyal gratuitement ah mu jëlee fi administrateur bi fi newoon xonq de dem kooka boole ci di ko liggéeyal ak di ko tiitaru bañ dem ba boo waxul tubaab ñu defe ne yow doo nit dara loola complexe gënu ko mag Sëriñ Tuubaa dindi loola lépp ngeen gis Cheikh la Lahad cor gi mu fi indi yooyu yëpp nga xam ne amul benn complexe loola ju dem na ba jur loo xam ne ci réew mi bi ak arrivé internet kenn ku ne la nga waroon wax ci lu baax loolu neex nga jël ko sànni ci ŋàññante xastante weerante lolu ci topando gogou nga xamne ñom ñoko fi duggal te dañoo xereñ xereñ goge moy la yoron yoroon ci ngànnaay nga jaarale ko ci xel dugg ci yoru nit ki mo gëna graw fuf parce que lañ cey def du ci gaaw a day def une dafay indélébi lolu du ci jóge mu ci àddina lolu mo gëna graw kon nak Serigne Touba mom limnu bayel moy bu fekente ne dañ cey delu di ci di ci wëru ci loola loola du ñëw ci suñ kaw mukk ci àddina ndax teel na koo xam ba fegal nu ko wan yoon la ñuy jaar pour gën koo mën a moytu euh, kon nag euh, loolu yàqu-yàqu yooyu dem na ba indi yàqu ci jamono ndax ab dëkk am réew bu ñu demee ba nga xam ne dañuy dégg turu nit rek ñu ne nit ki nangam te néew na ko koy wax ci moom mu wax ko wax yi bu baax ñu jàpp loolu te duñ vérifié muy benn ñaareel bi mooy nit ki fu mu toll ci sa xol rek fa mu ko daal di bëgg a àtte te doo ci seet yàlla bu defee muy ñaar ñetteel ba moo di euh, nit ki maanaam euh, alal ak daraja moo xew alal ak daraja ñaar yooyu nag li ko mën a gunge moo di giiroo ak ak ak booxante giiroo booxante te giiroo booxante fu mu nekk jàmm du fa ndax kenn ku ne dangay bëgg bëgg a ëppale sa te loo ko mën a faagaagal da nga koy foogaagal ngir ëppale jox ko la gën a nekk la ca des mooy boo gisee nit sax jàpp ne tane na la nga añaane ko ko loo loo gis def yàkkal ne tane na même bu dul tane na la ko sax nga fokk da nga koy daal di añaan réew mu mel noonu fokk nu delluwaat ci doctrine Cheikh Ahmadou Bamba fokk nu delluwaat fokk nu delluwaat ci gisinam ñu mu gis xam naa ne

jàmm rek la indi waaw te yaakaar naa ne réew mi itam gis ngeen ne jàmm <laughs> feeñ na fi alhamdulilah ibrahim kon bi ñu ngeen tuddee Cheikh Ibrahima yaakaar naa ni ah ni mu tombee dee rafet na lool ni mu tombee it ndax jàmm ci la lépp xam alhamdulilah ibrahim kon nag yàlla yàlla defal jàmm euh, sëñ soxna sëñ Modou Mahfouz maa ngi leen di sant bu baax sëñ Cheikh Abdou daf ma daan wax àndal ak suñu seet ak bu jëm fekk si moom wax suuf fële ca kër ga lépp lu fa nekk ci ñam na ngeen fexe ba mu jeex ngeen séddale te yàlla xam ne dawul xaj bi ma ko fi sëñ Saliou mujjee damaa egg si bëccëg mu ne ma sama am Saliou ka tey nii fii ma toog la toogoon ci lal bi bi muy dem lu jiitu muy dem waxtaane nan la nee na nee na danoo wax ne yaay suñu cër alhamdulilah cër boobu dañu ko yokk waaye wàññi leen parce que at mu ne wax dëgg yàlla daañu la woo mu ñëw fii barkeelu ci màggaayu gis barkeelu ci leeru soxna si barkeelu ci leeru ak xadimu rasul yi nga xam ne dañ leen fi teg teg tudd ñoom ñëpp rawatina sëñ Cheikh Ibrahima ñi nga xam ne ñu ngi tuddee guddi gi kon nag alhamdulilah def leen rafet ndax. Euh, da ngeen a yokk waaye wàññiwul leen kon nag yàlla yàgg lool yàlla yàgg yàlla na ko yàgg def te sëñ Mountakha Mountakha Mbacké suñu borom bàyyi ko fi ñu yàgg ci ginnaawam di jaay sëñ bu jub dañuy bañ a mënoon nañoo gën wax sax ci dem ndax liñ ci xam bari na. bokk ak ñoom mbégte mi rek ni ko Serigne Cheikh waxee léegi lu mel nii moom ci liy dundal bokk gi la bokk kon lu ñuy soññe la waaye luñ naw la yàll na yàlla yàggal ànd bi ak uh, jëflante bi di jël ay nuyoo di ko teg ci loxo sëriñ Abdul Ahad mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi uh, ak doomam sëñ Baye Cheikh Awa la ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy taxawee ci di ko waajale rek bis bi nga xam ne moom lañ dëgmal muy guddi gu màgg muy guddi laylatul xadr lu am solo la ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax di leen xamal ne dangeen koy def rek wuutu ci ñëpp li nga xamee ne soxna si noonu la daan taxawe guddi gi di ci wuutu mbokkam yu baax yépp di sant yàlla bu baax nag ci li ngeen ñu boole ci liggéey bi ndax loolu tawfiq la ci ñun na xam ci lañ bokk waaye bu ngeen ñu ci boolewaatee loolo dañuy soññ di ñu gën a dolli kon yàlla na leen yàlla fay aw yiw sëriñ Cheikh ñu ngi lay ziar bu baax te di la ndokkeel di la sant ci laltaay bi nga def e, foog naa ni mu laltaaye waxtaan wi daanaka dana ma yombalal man sama yoon ba daanaka li waroon a gudd li waroon a yaatu lu ci bëree bari xaw na koo tënk ba nga xam ne ñii amuk dégg dëgg-dëgg danañ xam fan wala waxtaan wi jëm lu ma ci junjit danañ ko mën a wot mottulee kàddoom yi nga xam ne moom la waxoon léegi nim ko junje nag thème bi mooy aalamiyatu almuridiya wala aalamiyatu daawati cheikh alxadim xam naa baat boobu nag e, damay bañ jéem koo firi ci tàmbalik waxtaan wi mu indi njaxas tuuti ndax day baat boo xam ne man ni ma koy xoole léeg-léeg mën naa xaw a firi mi mën naa jur complication tuuti ndax mi ngi aju rek ci anam gi nga koy jottali ko wax na ko léegi gëndaloo gu wooteeg sëriñ bi gëndaloo walla matale gu mu matale walla yaatu gu mu yaatu walla xajoo gu mu xajoo nga xam ne ay ay ay déggin yu bari la la mën a am lii jur déggin yooyu nag mooy ki koy wax ci ban xaysiya la jubloo wax ci ban anam ci gan wàll lay wax universalité wooteb sëriñ Touba wala almuridiya dégg naa ci ni ko ku tedd ka daan doxali di soxna may mën a mbàkke waaye bégg naa it yéen ñi ko wuutu na ngeen sofi liggéey ba di ko ba nëgëni kon nag sëriñ bi noo koy sant di ko ñaanal bu baax di ko gërëm di santit jëwriñam ju tedd ja di loxoom di sëriñ Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad tey kilifa kër gi barab bii nga xam ne moo tudd kër laylatul xadar nu nekk fii bi ni ko tey di fa màggale guddi gi mu ngi bàyyi ko ci ak Cheikh Abdou Lahad Mbacké xaadimu rasul soxna si daraan dafa màggal gi ci këram bu njëkk gële ca biir Touba ba bis Cheikh Abdoul Ahad dikk fa ne bis bi day liggéey bi sunu borom nangu na ko sëñ Tuubaa nangu na ko ba yaatu na ba àgg na foo xam ne danaa la wutal beneen beneen pàkk nga defar ko dolli ko ci kër gi ñu dafa defe leen xadara muy kër gii nga xam ne biñ ko biñ ko nattee mat na te cent vingt mètres wala cent trente mètres yu carré mu woo Serigne Mewndo Jaxate mi fi nekkoon di chef de village ba ne demal nga nattal fa soxna may lu mu soxla mu def fa këru laylatul xadar difa magal màgg laylatul xadar lii mooy sababu kër gi bi yàlla defé lu jitu lolé ñu doon ko defee daru daarul xam ndax laytu xadar soxna may mi ko tambalé daarul mooti bi bi ma bi ma amee ndigal ci al cheikh Mouhamadul Fadal ba bi ko seigne Cheikh Awa Balla joxe ndigal mu dikk daarul waxaab mu defe defe laylatul xadar ba am benn at am fa jàngoro ñuy wax choléra ci biir arrondissement Daaru Muxti ak département de Kébémer ak région de Louga ba autorité sanitaire yi wax ni bu ñu sañoon bépp ndaje moo xam ne day dajale mbooloo dañ koy suspendre ba jàngoro ji wàññi ko mbaamu jeex soxna si ñëw ci Cheikh Abdoul xamal ko loolee mu jox ko ndigal ne ko kon nag ren jii nañu defee màggal gi fii ci Touba loolu moo sababoon ñu jëlee màggal gi Daaru Muxti ñëw dafa defi Touba ci kër gii. bu ñu demee ba jàngoro ja jeex soxna si dellu Cheikh Abdou Lahad ne dama doon laaj ba xam ndax màggal gi dañ koy delloo Daaru Muxti wala am naa leen ndigal mu ne ko soxna may mun kuy liggéey Sëñ Touba ci barab bu sori di fa jëlee liggéey bi di ko andi ci moom. yàlla def nga dox ba di ko liggéeyee ci péncam ci ron jumaa ji liggéey ba duutu jóge Touba mukk na liggéey na laytu xadar na wéy ñu di ko defi Touba kon lépp bis bi gannaaw a Cheikh Mouhamadoul Fadal mi ngi bàyyi ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké te ku ne xam ne digganteem ak soxna Maymuna Mbacké ci bokk ga leen yàlla boole ci xaritoo gañu xaritoo woon doyloo gañu doy lewante woon ak bëggante gañu bëggante woon kon nag noo ngi yeesal sunuy cant ak suñuy gërëm ci sëriñ Sidi bi nga xam ne mooy sunu kilifa di feddali li doxoon diggante sunu wajur ak Cheikh Abdou Lahad di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te may ko wér ba fépp fu mu bëgg yóbbu liggéeyu baayam ba mu def ko na ko bëggee di sant mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi su ma ca tuddee Cheikh Bachir Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor kàddug Cheikh Mouhamadul Muntaxa yor kàddug yoon bi jiital sama cant ci moom dana ma ko dana ma ko mën a jottali mboolem ay magam ak yarakam te bis ni ki tey njabootu Cheikh Abdoul Khadir ñoo fi jiitu ñëw ànd ak noonu ci liggéey bi. di sëriñ Cheikh mi di taawam Cheikh Moustapha mi topp ci moom Sidi Mokhtar mi topp ci moom ba ci Mouhamadul Fadal mi topp ci moom ak mboolem njabootu Cheikh Abdou Khadir di sant mboolem njabootu sëñ Touba yépp itam ni ko Cheikh Abdoulaye waxee dama baaxoo di leen wax ne barab bi seen barabam kër gi seen këram. ndax ñoom ñëpp mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi dañoo jàppoon soxna May def ko wajur def ko sëriñ di ko liggéeyal ànd ak moom ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi kon nag bu nu demee ba soxna May gisatuñ ko sunu wartef mooy delloo leen jukkal jéem leen a fay donte sax duñu ko mën ndax ji nañu ko ji nañu ko sunu wajur waaye bi soxna si làqoo itam pastéef bi ñu amoon ci liggéey soxna may dafa mel ni tey jii la ñu laxasaay ba ñoom njabootu Sëñ Tuubaa yépp te ñoo ñi ci ëpp sunuy mag di sunuy kilifa waaye dañoo ànd ak ci bis bi waaye nag ni ma ko baaxoo waxee damaa nekk ci kër gi nekkal leen fi waaye maag ñoom ñoo yem képp ci kër gi noo yem ci bis bi ñoom ñëpp ànd nañoo man ak sama njaboot ci lépp luy doxal bis bi maa ngi leen di sant leen gërëm bu baax di sant it sama waajuru bopp di sëñ Mouhamadou Bassirou Anta Niang moom daarul borom daarul Muxti waajur la woo xam ne waajur wu ñuy sant yàlla la waajur wu ñuy puukariwoo di waajur wu ñuy damoo ndax gannaaw bu ko borom daru Muti juree tay mo tok ci jotaayam waye bokk na ci ñi nga xamné ko ne xamné ne Cheikh Mouhamadul Bachir aalim la borom xam-xam bu mag la ko ne xamné Cheikh Mouhamadul Bachir xaafit la borom alquran la ko ne xamné Cheikh Mouhamadul Bachir abid la jamm ko tu yàlla la bu yàlla defee nga am kilifa mu mat kilifa ci fànn yépp da koy sant yàlla gërëme ko yàlla te yeesal sa lépp ci moom kon maa ngi fedd li mboolem li ma seex seex Mouhamadou Bachir di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te may ko wér bu baax a baax mu yàgg na jiite ni ko sama rakka ju baax ji waxee di sëñ Mahmoudan sëñ suñ en tant day ko yàgg ak soxna may ndax ñoo bokk nekk ca daarul moxti ci jamono yu njëkk ya yàlla boole leen ci bokk waaye ñu wëlërante woon jàppante doy na ca firnde sëñ Bassirou Anta Niang doom ji mu njëkk gis ci àdduna soxna may la ko tuddi moo mat ci mboolem njabootam gépp mu mat jàng alxuraanul karim mu yëkkati ko jébbal ko soxna may soxna may jàngal ko alxuraan jàngal ko leneen lam ko war a jàngal yar ko yarub diini yar ko yarub taalibi ba mati dem kër mu jox ko sañ Jili Mbàkke doomi ak Cheikh Mouhamadoul Fadal témoignage yii mu ci soxna si te sunu rakk ju baax yii di sëñ Mahmoudan jottali ko te ku ne xam ne sëñ Bachirou doo xantu hmm. borom xam-xam la ku ragal yàlla la jàmmkatab yàlla la kon nag sëñ Mahmoudan noo ngi lay ñaan nga jottali leen sunuy cant ak sunuy gërëm ci sunu wajuru tedd woow wi noo koy sant di ñaan sunu borom yàggal ko fi te may ko wér di sant bu baaxit it Cheikh Bachirou moom Cheikh Abdoul mi nga xam ne moo amee kàddoom te nga wax ci turam bi mu xëyee bokk na ñi fi njëkk ñëw fii ci kër gi def fi témoignage bu rafet diggante waajuram sëñ Abdoul Khoudous ak soxna Maymuna Mbakke ndax wax na ba nettali rakam ji topp ci moom nga xam ne tey bu doon dund dana làq juróom-ñaar fukki at te sëñ Abdul Xuddus soxna may la ko tudde woon hmm. te sunu waajur yi nag daaru mati ñëpp noonu nii la ñuy def kon nag nuyu na sëñ Basiru Abdul Xuddus te santal na ko di nuyoo tey bu baax sunu kilifa bopp di alaaji maam Thierno Mbacke mi toog jataay sëñ xaw Awa Balla di mag joo xam ne taxawu njabootu sëñ Cheikh Awa Balla ak taxaw kër Cheikh Awa Balla ak taxaw njabootu borom daaru muuti moom rekk mooy yitteem yàlla defit muy koo xam ne ku fonkoon soxna may mën a la ku ko joxoon cir la doy na ci firnde moo njëkk a jënd ab oto def jox ko addiyee soxna may mënu Mbàkke moom Alaaji Maam Cerno te noonee lay wéy di liggéeyal soxna may mën a diirub liñ fi bokk nekk ba làq moom bi soxna si jiitoo it mu taxawu kër gi di soxna baal Bali di man mi ba ci sunu jarbaati bopp yi di Cheikh Abdou Lahad ak soxna su Mbàkke mboolem njabootam di tàmbali ci Sidi Mbàkke mi di taawam ak njaboot gépp fii lañ nekkoon ànd ak Cheikh Abdou Lahad mi yor liggéeyu kër gi ak Baay Cheikh ak mboolem njaboot gi kon maam Thierno noo koy sant di ko gërëm bu baax di ko ñaanal bu baax a baax a baax.